asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi njabootug lislaam ñoo ngi yëkkati ay kàddu fii ci marché Ocass di ànd ak ñi nga xam ne ñoo yilif marché bi ñëpp te loolu buñ ko waxee mooy kuréel bii nga xam ne moo lëkkale mbooleem commerçant yi yëngut ci marché Ocass ak fuñ mën a ne ñu yëkkati ay kàddu di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko noonu lañuy ñuy siyaaree mbooleem njabootuk Serigne Touba yëpp di siyaaree mbooleem seexi Serigne Touba yëpp waaye noonu la ñuy siyaaree mbooleem yëpp di santaat yàlla nag ci jataay bii nga xam ne jataay la boo xam ne jataayub woote la waaye jataayub tàllal loxo la ci ni nga xam ne noonu la ko sunu borom subhanahu wa taala santaane ci ab jullit te mooy waxtasimoo bi abdillahi jamian wala tafarraxu mooy bokk leen jàpp ci guumu buumu yàlla gi te bañ a tàqali ko waaye nag dee leen dimbalante innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum mooy yéen ñi nga xam ne yéen bokk gëm benn gëm-gëm ñëpp na ngeen di laabirante tey dimbalante loolu nag moo tax tey jii bi yàlla dogalee nattoom bi wàcc te mu wàcce ko ci ay jullit te ñoom ñooñee ñu gëm ne nattu natt bu yàlla wàcce ci ñoom la te mu doon ay ndaw yoo xam ne dañuy daan seen doole te ku ne xam ne ne fii réew mi toll genn wàll jëpp ñi ngi doon ay dëj ci dara waralu ko lu ay ndaw yoo xam ne dañoo jógoon di daani seen doole ba yàlla moom leen ci géej gi ñooñee nag fas yenee toog fii moom ci réew mi gàttandu ñaanu sëñ Tuubaa googu nga xam ne ci la waxoon ne wa ardahu ical arda risqin wa amaan wa rahmatin wa saxatin kulla awan ñuy daan seen doole ci pàkk bi nga xam ne 1961 la Cheikh Mouhamadul Fadal noppi ci Touba noppi ci jumaa yi Touba wax na nag ab dëkk da ngeen koy wutal ab marché boo xamante ni bii ñay dëkk ca dëkk ba foofa la ñuy jënd lañuy ñuy jaay duppee it marché bu nekk ca réewum makkatal mukarrama ni nga xam ne ni la Serigne Touba waxoon ne bi waccal bihi daariyakal madina barakatan wa kahbatal masuna mu tuddee ko marché Ocass moom Cheikh Mouhamadul Fadal mu ñëw dalool ko boppam nag wi ñu fi njëkk a jaay mu am ñetti fan jërut ca lañ delluwaat ci Cheikh Mahamadul faadal ne ko marché bi daa mel na njaay mi gaawut sëriñ Fallou tibb ca loxoom barkeel boobee soo sa ñaan jox leen ci na leen fu ngeen bëgg marché ba àgg na fa àgg lépp dana leen fa fekk yaakaar naa ne boobaa ak léegi nag lépp lu waay jaay ci marché Ocass jar na ba ku ne xam ne ne opérateur économique yi nekk ci réew mi amul kenn koo xam ne mën ngaa waat marché Ocass kon marché Ocass barab la boo xam ne barabu lislaam la ni ko sëñ Tuubaa woote woon ñëpp daje fi ñooñu nag natt boobu dal ci seen kaw nag ci la taxoon nag Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa borom yërmande ju yaatu ji yëkkati woon lim bu toll ci téeméeri million jox leen ko na leen maa leen ko dimbalee waaye teewut état wu Sénégal ci njiitul président Macky Sall yëkkati juróom fukki million jox leen ko na ko mayit maa leen ko dimbalee noonu it la mbooleem ñi nga xam ne xam nañ ne am natt bu dalee ci kaw jullit dañoo war a maase dimbale ko kenn ku ne yëkkati sa loxo lu mel ne ma di Niang moom it yëkkati lu toll ci ñaari million def ko ci ku ñu wax sëriñ buub yëkkati ñaari million def ko ci Pape Diop yëkkati ab million def ko ci ab Ablaye Ñaan yëkkati ñaar fukki junni def ko ci Fallou Ndiaye yëkkati ñaar fukki junni def ko ci Jili Gumbala yëkkati ñaar fukki junni tey jii sëñ Souley Diagne yëkkati fukk million def ko ci sëñ Abdoulaye Touré yëkkati ñaari million def ko ci Serigne Mansour Sow yëkkati million def ko ci Serigne Khalifa sekk yëkkati million ak téeméeri junni def ko ci Serigne aboo Xuma yëkkati téeméeri junni def ko ci looloo tax nag marché Ocass dajawaat di tàllal loxo képp koo xamante ne bii li nga yor xam nga ne lislaam am na ci wàll li nga yor xam nga ne Serigne tubaab moo la ko jox te say mbokki taalibe say mbokki jullit lakkale nañ natt wàcc na ci ñoom te wóor na ne la natt boobee fas nga ko yéenee bokk ak ñoom moo marché Ocass ñu ngi lay tàllal loxo di ñaan nga dugal sa loxo ci lii nga xamante ne bi bu ñu sañoon ñii kat seenum xel du dem ci géej gi seenum xel du dem ci gàddaay dañuy dëkk ak Serigne doog di liggéey ci réew mi loolu moo tax danañ yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Daam Jaxate mu yëkkati ci ay kaddu ci teewaayu Serigne Bay Sarr mi jiite tailleur yi Serigne Sini Dieng mi jiite mbooleem waa marché bi ànd ak waa marché ambila bi Serigne Fallou Xuma mi nga xamante ne bi moo teew teewal waa ASIS gépp kon ñu yëkkati kàddu gi jox ko Baye maara moom it mu soññee ci liggéey bi nga xam ne ci lañ tàllal loxo nag fu ab jullit mën a nekk bul xeeb sëñ Fallou Galass si la waxe rek ah bu fekkee yàlla dajale nañ fii ñu doon ay jullit doon ay donga daa bëgg nu dimbalante ku ne sawtiis sa coppati lam am ca lam am dimbali ko bu kenn ni lii am tuuti na bu kenn naw lim amit kenn ku ne la nga am na nga génne ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak jëmmi yàlla mi nga xam ni moo nu sant nu dimbalante ku sa moroom nekk tiis nga ànd caag moom ku sa moroom ku sa morom ñàkk dara nga dem tiisoo lekk ko boo ko tanee nga dimbalu ko ca kon nag lii moom xeebut yéemut kenn ko ne daal la nga am sa ñax génn ko te yàlla tax nga joxe ko jërë ngeen jëf asalaam yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaar di leen gërëm di leen sant ah di leen jottali ay kàddu yu tuuti yoo xam ne sii li ko waral mooy nattu bi nga xam boroom moo ko teg ci fii ci marché Ocass mar bi mu ko ci tegee nag natt bi nuru na lu metti lool waaye nag bi kilifa yi jógee natt bi mel ne na woyof na ci noonu lool toy ndax kenn ku ne mel ne ne jël na ci wàllam bi kenn ku ne jëlee wàllam woyof na ci noonu lool surtout sëñ mun Muntaxa sëñ Muntaxa moom wax dëgg yàlla bi mu jógee ak jëfam ak waxam mel na dara méttee tunu sant nan bu baax a baax sant nan ko sant nan yàlla sant ko ndax lii mu da wan day wane ak ngëneelam ci nun waaye dara waru ko ci nun lu dul ñaan kon nag noo ngi koy ñaanal suñu borom gën ko fee bàyyi yàggal ko ci suñu kanam nu yàgg ci gannaawam li ci dolli ko mooy nun bokki commerçant yi bokki euh, liggéeykat yëpp sax la opérateur économique yëpp ak lu waay di mën a liggéey rek noo ngi lay ñaan nga ñëw jàppale suñu bokki jullit yii nga xam ne am natu daa dal ci seen kaw lépp lu waay man na ko ci def surtout waa inaa ko waa bu Dakar keroog bi mbir mi xewee suba cooy la ma sambul si le téléphoné massanu masanu coono ne ma na ko na nga ko jottali ñëpp jottali naa ko ñëpp ca ngoon la ma boolee ak ka jiite waa ñu def ci ab émission spéciale ci DTV ñoom ñëpp seen seen seen xalaat ak seen jëf yëpp ñu ngi leen ci yaakaar seen xalaat ak seen jëf yëpp ñu ngi leen ci yaakaar ci nattu bii dal suñu kaw léegi nag duñ def lu noonu gërëm ak sant ak jéem a lépp lu sëñ bi digle nu jéem caa nekk suñ kem dalay kàttan di joxe addiya di génne asaka di dimbalee noo nga ca wax naka jekk waaye nag gën nañ caa ñaaxaat suñu bopp ndax fi nu nit ñu teg ndax mbir mi daa mel ne mbirum ñëpp ñëpp dañ ko def seen seen mbir kon nag noonu lu lu lun mën góor góorlu rek nañ ko góor góorloo ci jëfe ndigal yi bàyyi tere yi suñ kemtalaay kàttan lu fi sëñ bi tere bu ñu ci dégg lu sëñ bi santaane nañ ca man noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ak ñoo xam ne dañuy liggéey ci marché bi natt boo xam ne daa ci marché bi ca njëkkul nag tey ndax 1957 bi sëñ Fallou lee moo marché bi bu ñu doxee diir bu gàtt la Baye Dabo doon bougé fii rek dafay lakk di bi lakk marse bi nga xëy dèjà tiit bay daw di wër marché bi moom mi lakkan marché bi di wër naan Dabo lakk na marché sëñ Fallou Dabo lakk na marché sëñ Fallou waaye gis naa ne ña ca gën a na lakkale ren bu ñu seet ñu ëppale ci fii mu toll tamit bu ñuy seet ñu ëppale ci marché bi ñooña la ñuy doon ana lu waral loola nag. mooy ab jaam bu ko yàlla tegee am nattu na ko delloo sunu borom damay rafet njort nag ci xam ne nun mii mu dal tawféex sëriñ bi dana ci tàbbi ngir ndimbal sunu borom mu ngi tàbbi ci koo xam ne day taalibeeb sëriñ Tuubaa boo xam ne daa gëmuk taalibeem ca nanguy dogal ci tënku ci ndigal ndax kere ba mbir mi xewee danoo ànd dem sëñ ci sëñ Muntaxa fekk mbul kayel ba nu àmbee la mu wax mooy mbir mi nan ko delloo sunu boroom ndax yàlla mi nga xam ne xam na li muy def xam na ni mu koy defee ca xam na li tax mu di ko def nan ko doyloo ca delloo ko suñu bopp delloo ko delloo ko lépp loolu nag daa mel ne bi ñu dikkee ñii nga xam ne ñooy marché bi ak ñi lakkale woon ak ñi lakkale wutoon lépp dañoo bokk tiis bi bokk nattu bi bokk métit bi ba tax na ñii lakkale sax daa mel ne ñi lakkale wuti leen gën a méttile ëpp gën a yenu métit bi loolu nag kon tax na daf na woyof na tooy ci ñow waaye li muy woyof woyof nag nun ñi nga xam ne noo di ay jullit di ay murit noo ngi tàllal loxo fu jullit nekk ca xam ne moroomu jullit itam nattu dal na ko ca su bu ko nattoom dalee kenn ku jënd da ko war a def ne boppam te dugal ca loxoom dugal ca yéeneem mettit lu ko su ko defee bu ñu ca tàbbalee suñu yéene nun ñëpp bu dajee rek dana woyof tooy ci tàllal googu nu tàllal loxo nag yëmali wuñ ko ci réew mi yëmali ko Touba képp yëmali ko Sénégal képp fépp fu su nekk rek tàllal nan loxo ca xam ne seen moroom jullit la am nattu dal yoo bu tiis boo xam ne bii ay gone lañ yoo xam dañu dañ leen a war a jàppale gëmloo leen li li li nga xam ne moom la ñuy def ndax lii ñuy def ba tax lii fekk leen ci kat seen yeneen moroom a ngi def leneen loo xam ne lii fekk leen doo waaye lañ leen di def yaraanga leen cay toppee ñoom nag deful ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu jàppee ne lii ñuy wax ñu bàyyi xel lool na ñeenti téeméeri nit ak ñaari nit lakkale nañ fi te ñooñu amu ci kenn koo xamante ne bii la nga lakkale juróom fukki junne fa remplacé na ko kon nan jàpp ne mbooloo moo fi yàqule alal ju bari moo fi yàqu jaaxle ci loolu nag ak delloowaat suñu bopp ci yàlla te ab jullit bu jaaxlee sañ delluwaat ci moroomi jullitam moo tax ñuy tàllal loxo ñëpp bokk na ci ñii nga xam ne ñoo yor caméraman yi di ay caméraman ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca seen télévision yi ak ñene ci rajo ya fu dara masaa xew danañ fa def ay débat débat yooyu ñuy def ngir tàllal yoon ñu loxo nañ defal ñii ay débat ndax kat mat nañ ko kon ñoo ngi sàkku ci mbooleem koo xam ne yaa ngi ne ci réew mi moo xam ngay opérateur économique moo xam ngay ab homme d'affaires moo xam ngay ministre moo xam ngay politicien képp koo xam ne daal soo soxlaalee Touba daw ñëw fi moom la nga soxlaal Touba tey soxlaa Touba soxlaal na la nan nga ci dugal sa loxo ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.